الحمد لله الكريم شلمنا على اتخاذه بفروض وسنن سكرته لأنه خفاخني لوطن به نفع ما خني وغادني إليه بلا آلي من بعد ما هذا باب تخلي wajarani fii ilal ulumi wal fawzi bil hamali bil maxrumi suma salaatu bi salaamin tabiha alal lazi xasdiya ataabiha alal lazi man bi waadi xatida fi sirri wal jahri yakunu muqtada والذي هاجر للمدينة بأمر ربي فزان دينا وسيلتي لمالك الرفيه محمد خير ولا شريك وآله وصحبه نجومه الغائر النفوس وأهل ndongali Serigne Mbacké Cissé Bilal fii ci Touba Darou Khadim daaray Serigne Fallou Mbacké ci njiitel Serigne Fallou Touré. man nag Mouhamadou Fadilou laa tudd di turandoo Serigne Fallou sama waajur tudd Serigne Saliou yar moo ma jàngal ci loxoy sama mak Serigne Xaadim Touré. jaar naa nag ci daara seen seenu gay waaye ma fay jaarit ci ndigal loolu laa fa jaare woon suñu borom tawféexale na ma sama kaamil jébbal naa ko Serigne Saliou kàddu bi ma njëkk a am ci alxuraan Serigne Saliou moom ma ko jox. daara ji ñu ngi ko taxawal 2017 euh, ci njiital Serigne Fallou Touré waxtu jàng yi njël moo ci jiitu dañ yeewu ñeenti waxtu ci 4 heures daani jàng ba julli jot ñu fatu bu witteeree danañ ubbiwaat jàng ba une ñu fatu bu trois heures daañu duggaat jàng ba six ñu wàcc jàpp six heures demi ñu wàcc dallu duggaat jàng marax bu ñu sëlmalee timis ba ñu sëlmal gee incha allahu rabbi suñu borom defal ma tawfiq ma am gis-gisum ne bë bëggumaa yor daara joo xam ne ndag bu waaye yor mu tilim boo ci defee ceeb ni yëtal doo nga ya bëggumaa yor daara joo xam ne fu waay riire boo ñëwee loo bëgg a wax wax leen ko waaw ñaan yàlla yor daara joo xam ne waajur bu jógee fa nga ne boo ñëwee boo duggee looy waxaat da ko segg ndax danga nga yëg ne say nawle nga fi fekk loolu laa laa ñaan suñu borom loolu nag tëbaxun ko ci weer tëbaxun ko ci ay fan ay at la waaye lan ci jaaxante mooy lépp loo xam ne dërëm la bu waaye ma sa yëkkati jox nu ngir daara ji suñ doon lekk laaxit daañu ko def ci daara ji man oma compte suñ Mbàkke mi moo yor compte daara ji ay millions yu nit di dugal ci compte am la koy dugal. daara ji internat la waaye kenn du yalwaani kenn du yalwaani internat la waaye nag du internat boo xam ne ñi fi ñëw dañ leen a sas dara internat boo xam ne dañ koo taxawal ngir jëmmi bi ñi nga xam ne xëy na. bëgg nañ seen i doom jàng nekk ci moyen yu baax te te yàlla suñu moom dogal seen loxo jotu seen gannaaw loolu moo waral ñu taxawal bërëb bi kenn susu fi dara kenn du fi laaj kenn dara des fi liggéey sëriñ bi moo ñuy fekk ci liggéey bi waaye du keneen koo xam te ne nii ñu ngi sàkku loo ciy def wala luñ la ciy laaj saa yu xëyee daal daañu xëy nekk ci liggéey bi ñu ko fas yéene lépp loo xam te ne suñu dogal na itam muy wàllu xéewal saa yu jotee gone yi daañu ko def na mu waree te du am benn jafe-jafe. bi ñuy samp daara ji nga xam ne ñu ko fi def li ma njëkk a jaayante ak sama borom jaayante ko suñu tubaab mi xam ne mooy sama buntu sama digg ak sama borom mooy damaa gis ne internat mooy système man nag jaar naa ci daara yu mag man man waxuma pour pour yàq jeneen daara ndax jaar naa ci laa ci laa jànge waaye dama ne internat damaa gis ne mooy système bi gën a mën a gaawal njàngum bi mu gën gën a tënk temps bi ci def gën a gën a gën a gën a gàtt internat moo ko dàq ndax kii jàngi yalwaani temps boobu muy dem di yalwaani boo ko joxoon jukki bi dana ci dara bi hurmatil mahbubi ibrahima wal yasux xayra alal taybi wa xayra jiranin bi haqi taybi وسخني في باتن وسائرين وارحم بي الخلق بآختين ورقني ترقية خفية sëriñ bi rek waaw moom daal lu fi dem ci poosub sëriñ bi lay jógee <laughs> waaw ndax am na loolu moom ñëwut a wax mi koy dund sax maam léegi da ba yàgg nga beru maam maam maam di sant sant woon ndax mbir yi day sotti te doo doo doo gis fi muy bàyyi ko moo tax man la sëriñ bi rek waaw li nga fi gis muy liggéey bu mag bi daaw lañ ko sémb ci waxtu yi lii lenn la ci bërëb yooyu nga taxawoon ci ci la bokk foofu nga taxawoon bi ngay jël euh, daara ji ci bërëb yi la bokk ay daara la daara ju mujj ji nag nga xam ne moom la ñuy liggéey pour war a ubbi daara ju njëkk ji ci Kazu Rajab bi ñu jëm ndax juróomi daara la comme ni ko sëñ bi limee daaraam daara daara ju njëkk ji mooy daara ji nga xam ne mooy mooy général bi nga xam ne ñëpp fi la ñuy daje dongo yu mag yeeg yu ndaw yi dafa jàng alxuraan daara ji topp daara yu jigéen la internat Soxna Jaara la nga xam ay jigéen rek lay jël ñu fay jàng alxuraan ji ci topp école lay war a doon boo xam ne day ànd ak majalis am dañ fay jàng tëral ci majalis dafaa fa classe yoo xam ne da ngay mën a jàng ba ba xam nga mën a def candidat libre mën a dem ci école yi eggal sam jàng yeneen ñaari barab yi ci des nag formation la ak barabu fajukaay boo xam ne dañ ko waajal ngir donga bi lu ko lu ko wokkati au lieu que muy jël taxi dem ba dëkk ba wala oto di ko yóbbu dañuy am médecin boo xam ne day am bis yoo xam ne dañu koy jox nga xam ne bis yooyu moom bur wala dara jot ko foofa lay dem ñu xool la ko dal la war ci garab ñu jox ko ko. donga yi eh, lu mu néew néew li leen manqué téeméer fii ne bariwul te loolu sax li ko sabab mooy ñu euh, bëgg a ñëw te suñ borom dogal na ñu bëgg dundin wi yaatu kenn ku ci dama cee gis sa bopp moo waral ñu taxawal ni leen loolu moo waral yokk bii ñu yokk daale te lii nee naa leen léegi ab tàmbali la ci ndax li yéenee ànd ak ñun ci liggéey bi maanaam mëneesu ko mëneesu ko misaal te loola la koy waral mooy faw nga defar bërëb yi yaatu ndax doomu aadama it boo ko dee boo ko boo ko bëggee teg ci condition yi baax da nga koy wëral bërëb bu yaatu ndax loolu day bokk ci lii li li lii kii dund xale bi bërëb bi xaw a yaatu ba mu mën a féex ngir li bëgg def ma mën koo def loolu moo sabab yokk bi nii te lii dama ne ab tàmbali la ndax juróomi bâtiment lees ci naaw lii benn la ci mu des ñeent te loolu lépp ngir donga yi la rek seen waajtaay dong du keneen ngir donga yi ndax ñun ñii di wax ak yow lii mooy mooy dëkku dëkkuwaay si nekk ak njaboot gi waaye leneen loo fi gis pour donga lu fi dugg loo xam ne ci alxuraan la jëm ñu nekk Dakar ak ñu nekk ci dëkk bi ak fudut Dakar lu fi yónnee mu jëm ci daara ji moom ñi leen koy jox man lu lu dugg ci sama loxo rek sama mbirum bopp moo xam ne su ma sañoon bu ma neexoon nit ma xëy taal ko te kenn du ma ko laal loolu moo inde arminion bi ngay wax ak ak yi fi fekk ñaareel mooy waajur dafa am doole te suñu borom tawfiixal na ñu am ñaanu suñuy waajur buñ fi bi biñ ko njëkkee defar mu doonu terrasse def ci ay néeg ba kuule ko sama borom tawfiixal na dama jël caabi ya kayit yëpp dem ci sama waajur jox ko ko hadiya téye na ko ay fan woowaan ma boo ma ñëwee dana ma dana ñaanal ne ma da nga fa yaatu te foo bëgg mu egg dana fa egg ne ma waaye nangu gu ma nangu jëf gi moo tax ma la koy delloo loolee am na seede yu bëree bëri fii daara ji egg bettuma te njortu naa ne mu fi yàlla bàyyee dana ko romb ndax addina yàlla da ko binde kenn ku ne da nga am ambition ñun suñu ambition mooy alquran fa kullu man asaa fan ubi فليخلب قلبه يا رب وادع فيني آسى جميع العالمين وتكفيهم عسايا يا رب الأمين وجل بنا إياه بنا عافية يجوني إلى خيول سافيا وجل بنا إياه بنا علم sëriñ bi moom moom xam nga ko ci alxuraan ki ci nekk moom moom amul lenn loo xam ne war ma ma maanaa yàlla dina ci yow xanaa cee yow yaay am fooy tàmbale ak fooy yem waaye li ngay mébét yéene ko soo doxee jëm la la ci fekk sax doo ko gis loxo bi def sa poos ngay génne di ca def maanaam doo lam ba daj loxo bi loolu moom xam nga ko ndax doo nga daara nga du jariñu ci sori ndax yaa naa mm, bari na daara yi ci dëkk bi yoo xam ne da ngay jékki-jékki rek gis suñu borom def ci tawfeex te boo laajoon borom sax moom ji jëmoon la fa def loola mënu la koo wax waaw waaye wax moom moom lañ njëlbeenoo def fii bennum néeg ànd ak yi dox moom xam nga fu àll day kii ànd feeg donga yi di fi fanaan ak ñoom di fi yendoog ñoom di xëy di def ci ñoom li war ci ba suñ borom indi lii lépp te lii yaakaar naa du du du du du maam mën naa ne du toq ci li yéene du toq ci li yéene li suñ ko doon wax dañ naan kii li muy wax nii maanaam da ko wax rek waaye duñu sax li kii waaw du ci li ñu ndax sëriñ bi moom boo koy liggéeyal da ngaa war a rëy aw naan ba pare nag sori gis-gis waaw bañ a yamale sa sa gis-gis fenn bañ a xaar kenn nit nag bañ a xaar kenn xaaruñu kenn yóotuwuñ kenn liwaayuñ kenn li ñu bëgg daal saa ñu xëyee bu dee benn néeg la man ñu def ko ci delluwaat ci dong ngay nekk ak bu dee ñaari néeg li man ba ba li fi taxaw taxaw li fi taxaw lépp looloo ko fi taxaw. te daara jee nag war naa jël lu mu néew néew ji njëkk ji war naa jël ñett téeméeri xale ak fukk ñett moom la war a jël su noppe xam naa dugg nga fa ba gis classe yi ni ñu ko programme ak bâtiment yi xam naa ay classe la ak bâtiment yi xale yi ak bâtiment yi seen yi ak jullikaay bi yeneen barab yi ci des nag moom du am loolu yeneen barab yi moom barab bu ci ne benn mbir rek moo fa nekk comme nii bii ni mu fasanti ko yeneen barab yi moom benn bi international jaara lay doon baneen bi doon doon jàngukaayu école bi beneen bi doon formation boo xam ne xale bi bu jàngee ba bind kaamil rek buy xëy di jàng école bu ngoonee day dem def formation waaw benn tailleur wala métier mu mën a doon mu koy def ci biir ci biir cours boobu beneen barab bi doon fajukaay xam ne xale bi fi jógee day mën a yóbbaale lu bari bu soobee yàlla. courant bi daara jee ko fi indi gis nga panneau solaire be moom lañ fi ndoorteelam. waaye daara ji sëriñ bi ak alxuraan ñoo ñeddi courant bi indi ko ba fi tey bu ñu doon wax ah, daara ji sañ nekk ci xëcc ku ne mu leen nangam nga ma jox waaye nag bu ñu ñëwee ba pare daara moom dañoo baaxoo woon dañ koy dimbali waaye daara ji moom bu ñu ñëwee lim njëkk mooy fas yéene di dimbalee. <laughs> suñu borom defal nañu tawfiix bi ñu sancee daara ji toog nañ diirum ñetti at yoo xam ne wala ñeent yoo xam ne loolu mosu fi am. waaye xam nga daara bu fu ne bu fekkee ne fu ne la waaye di jóge di fa ñëw il faut que léeg-léeg am rax am ñaaree baat mooy da nga am donga yoo xam ne doo mën a gàntal seen waajur te xëy na yeex nañ ci seen mbir ba dina tàmbali na fëkk bànneex di leen gane si ñu di ko xam ndax fii dafa doy sëkk waxuma la njàng ak coono yi mu jànkonteel waaye maanaam dafa doy sëkk tënku gi rek daa metti xale bu tàmbalee libre rek soo ko bëggee tënk nu mu mën a def ba rëcc dana ko def waaye nag suñu ma defal nañ ci tawféex yi yërmaande ji xëy na mooy waral kuy génn daara ji génn waaye daara ji moom am na sécurité ndax kees gi ngay gis benn porte la buñ fi xasee dugg ko teje ku fi jaarati fii nga jaar wane yëpp yëpp ngi ci biir ba añ jotee ponk magum jëmee taxaw ci buntu ubbi jël añ bi dugal ubaat waaye nag xale yërmaande ji ngay am ci moom lala cee naqari loolaa la ko cee teg waaye lala cee neex loolaa ko may kon loolu moom jànkoonte na noonu moom waaye sabab bi lii la mooy xale yi nga xam ne dañuy dem ba weesu fu ñu waroon yóbbee daara wala ñu dem ba gimbi ci àddina te xam bànneex ak yu bari ñu jékki-jékki xëy rek tënk leen duñ xam tënk googu am naa fi dongo boo xam ne ndakaaru la jóge bu ñëwee daa waxtu wi la egsi xam naa daa daa reer daan na xaaral ma gont dellu reer rek la doon xaar daa reer <laughs> delloo na yaayam téye ko foofu di ko jëndal loolu wóorut <laughs> waaw loolu moom nag koy jànkonteel ah moom jànkon loola moo doonoon sabab bi te yaakaar naa fii ne mën naa gëj min amalin yunaksibu faghfir lana wa li jamiil muslimina ajmahin wal muslimaati kullahin kullahin ولا تؤاخذنا بسوء لدبي وبتجرؤي وكؤوس لعبي فإننا وإن تأجرنا فلا ñun daal suñu dooree liggéey bi nekk ci dañ ciy nekk ku ñu ci fekk nag la nga joxe ngir alxuraan loolu moom dañ la ko defal ci ci ci daara ji waaw loolu moom dañ la ko defal ci daara ji ndax jullit bu ñëw ngir ngir ngir ngir barkeelu ci mbir kenn du ko ko xaj suukar buñ ko soxla woon dañ koy lijjanti waaye li nga xam ne daa ji da ko tax a jóg ko laal bu ko waajur wi dugaloon ngir tu tànk bi fistin du ci dem ci kenn moom moo koy jëfandikoo soxlawuñ ci dara waaw moo ko xala yam ci ñun a noonu moom moom moo ci moo moo ci mooy suñu dund ci daara ji waaw woowuñ ci woowuñ ci ne ko jàppal ci liggéey bi woowuñ ci kenn ne ko dañuy liggéey nangam des na ko def nag comme ku mel ni seen classe bi bu ñëwee saytul la mbir ba pare wane ko ci bërëb bi koo gis xam ne lii liggéeyu euh, suñ borom la boo xam te ne nii leer na ko ne mën na caa def daraam ngir ëllëgam kooka moom loola moom la ñeex waaye suñ jëmm ji ñun moom ak suñ digg sëriñ bi xiyaas nañ lenn loo xam ne dañ koy jël di ko teg doomu aadama muy diis man naa mu am ci te du ko de loola it mooy xalaatu bancaa bancaa teg kenn lenn xanaa dox rek jëm na waaw dama ko dégg woon ci men benn kilifa gu mag Serigne Mamor Mbacke koso ndax lu baax la mën naa tudd tur bi bi mu mébétee jumaa jumaam jooju ci koso jo muy du rëy lool dañ ko ko waxee mu ne leen dama xam ne kii ma koy defal mooy yeggale néegi jàmbur yi kon nag am néegam du ma ta wax daara suñu borom la ci bërëb suñu borom yi ndax fi la ñuy waajale kii taxaw ci jàkka ji fi la ñuy waajale ki ki kii taxaw di kii tudd fi la ñuy waajale fi la ñuy waajale fi fi la ñuy waajale kon bërëb la boo xam te ni Euh, ngir ngir ngir ngir suñ boo fi dee def dañ dañ ci yaakaar yàlla rek sukkandiku ci bo sama sama waajur daa amoon kóllëre ak Cheikh Amadou Fadal ba tax mu tudde ma ko te lool moo ko nett li sëñ bi dugg na ci noppam kóllëre gum seqoon ak moom ci ba muy nekk ca daara ja ci xale mu mas leen faa fekk kóllëre googu tax mu duppi ma sëñ Fallou ma fas yéenee sukat kóllëre googu sama diggante ak Cheikh Amadou Fadal loolaa indi dama ko daa defal daaru doos ca kër gu mag ga sëriñ Xamsatu moom sëriñ Sohaybu di ma fa fekk di fa ñëw di fa gane si di sunu jëwriñ di suñu sëriñ ba yàlla dogal ñu ñëw fi mu dama fi fekk nga xam ne at ñu ko def bëccëg te bëccëg yi xat ci moom da ci téewul waaye at yéen ko daa def guddi yëpp da ko daa téewel boppam te man ma sàkkoon ci moom dara bañ koo tënk ci sama mbir ndax dongab daara laa loolaa sabab bis bi biñ ko indee fii nag tam da tam ànd ak alxuraan suñu borom defal ñu tawfiix at mu ne buñ ci eggee lu ma juróom mokkal alxuraan wala ñeent ñu jël alxuraan jooju dugal ko ci biir bis bi am xam ne bis bi dañ ciy sargal xale yi génn ci at mi mokkal alxuraan dañ leen ciy teral seen waajur teewee ko ñu ñaanal ci Amadou Fadal addiyaale ko ci santale ko ci Sëñ feet di la ci sama kóllëre ak moom ngir loolu ma sama waajur wax te ma ko lool. ba tàyyi yéene ba tàyyi te mënut ta am sax buntu bu mu sukkandiku ba def loolu sant sëñ Fallou mii ñu ko àndal nga xam ne euh, duñ ci sori ndax euh, waxi wolof naan danaan danaan danaan la lu mu wax ci béy wopp dañ naan der baa tax moo tax duñ ci sori waaye sant nañ ko ndax liggéey bi mu taxawal ba pare maanaam maanaam yaatal ko bunt yi mu ubbil ko ñëpp ba ku ci bëgg jot man cee jot du lu yomb nit jëm naa taxaw lu mel ni waaye day tànn moom nag tànn ndax am na fi ñoo xamante ne nii ba léegi fii may waxee yow xamuñu xamut seen waajur moom mu sa tegoog ñoom te jàng nañ fi ba yaakaar naa fi ne seen alwa caate na te mu sa gis seen i am na fi ñoom ba léegi seen waajur yi ndéeg léegi tegaatuñ fi tànk loolu des ko ci sant di ko ci ñaanal ñun ñu jaayante ngir ànd koog moom jaayante ngir ànd koog moom bu wér-wér bi am na leen lu ñu bokk ci bokk waaye loola dañ koo teg ne ndax dañoo am lu ñu lu lu ñuy seq loo xam ne loolu moo gën a mu muy liggéeyal sëriñ bi ci alxuraan ak xaside ak yar ak yare أنت ربي الوهاب وبي فتوحتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الأشيب وأنت حسبي فلا أخيب يا هدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا هي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أناس يا ربي أنت ظلم للوالد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت سلطة يا ماجد mooy bu ñu xëyee jàng alxuraan xale yi tari woon alxuraan eggale seen alxuraan ñu wàccee kaamil def lan man ci bernde jàng xasida bu ñu jullee tisbaar def cérémonie boo xam ne dañ ciy waxtaane mbir moomu ak teral xale yi ba saan yi ñu ñaan ñëpp yeewu ba beneen yoon loolu moom at yi ñu mujj ak yëpp doxin yi loolu la ndax dafa dafa système bi mu àndal mooy loolu mooy dafa ànd ak mbirum alxuraan bi ak bis boobu mara defa siyam dafa àndal daara ji bi ñu ko sancee ak léegi 2017 ak léegi yaakaar naa juróomi at wala la ñaar fukki kaamil alxuraan ak nii yoo xam ne ci daara ji lañ ko binde ci mbind loxo xale yi ko doon bind fajar la ñuy xëy war bind ñaar isib topp ko maanaam maas ko topp ko joxe ko wane ko te duñ ko xool ay wakaana xaqan lu man ñeent fukk ak nangam mi fi yoo xam ne bokkut ak yi ñuy waajale kasar yoo xam ne ñoom ñoo ko bind dégg nga juróom benn ngi fi ñu wattu alxuraan ñoo xam ne ñi ne ñii yi ñu waroon dem dematuñ fan yi ndax li ñuy tari xaw a bari bis set bu ñu liñ fi tari dana man ñaari kaamil alxuraan ndax juróom-benn ñooñu kenn ku ne da nga tari ñaar fukki si loolaa leen tënk ba jamono yi yëpp mëna ci ñoo dem loolu mooy mooy sama àddina kenn ku ne nag lii sa àddina yow ni ngay def bam mën a avancer nekk ci kanam suñ borom pare na ci li ci des sa yow rek la ya noo ci doxee rek yàlla doxoo ci noonu waaw dégg na sëñ Saliou nee na sëñ mag bi daan wax lu mu am yàlla moo ko may waaye lu mu ñàkk moo ko waaye dina wax moo ko xañ di xamal ne daara ji itam ay mébétam ak ak ak ak ak ak ak jëm ci donga yi bari na ci loo xam te ne xajut ci jotaay bi ñu nekk gone yi ñu ngi leen di jàngal ñu ngi mokk mokkal fa tabaarakallaahu suñ fal ñëw ci leeral boobu incha allahu rabbi li ci des ñu sant la gërëm la waa Rava TV gis liggéey bu mag bi ngeen di liggéey ci dëkk bi ñu yàgg ànd ak yéen ñu mel nii taamu leen ci te gis nañ ni suñ ko seqee ak yéen ci am ñu bëgg ñu leen di ñaanal suñu borom gën a taxawal seen tele bi ba mu bokk ci tele yi gën a kawe ci dëkk bi wala sax ci adduna bi waaw mook rajo bi yëpp sans borom barkeel ko barke Seexul Xaadim daa daanee la mooy sant ñii ma ko àndal muy sëñ Mbàkke Cissé mi ak sëñ Seexuna Cissé mi nga xam ñoom ñaa àndal daara ji di ko liggéey santit sama waajur bi nga xam ne moo ma moo ma moo ma moo ma meññi yar ci sant sëñ Xaayam Touré nga xam ne ci loxoom laa jaare mu dénkoon ma ko ak sëñ Muhammad mi nga xam ne jaar naa ci loxoom moom itam tam wàcc suñu borom yërëm ko xale yii tamit am na ci seeni waajur ñu ñu ma dimbali leen ci doxin wi ndax daara ku ne xam na ni mu bindoo waaye ñu ma ci dimbali leen ndax waajur mënu laa dimbali lu weesu jox la xale xoolatu ca dara la ko cay neex ak la ko cay naqari lépp. mu di ko muñ ngir jëmmi li mu bëgg ci moom ak xool sa jëmm ñooñu yore naa leen njukkal loo xam ne ñoom buñ may sant man dama yëg ne maa leen yoreelu cant ndax ko sëñ kokki daan wax rek xam naa egguma fa waaye am naa yéene ji mooy dong bu fi nekk jàng su ma sañoon dama lay fay di fay sa waajur ba ba ngay mokkal alxuraan waaw kon loolu foofu laay daaneel kàddu assalaamu ala man ittaba al huda وبصراطه يسر المرورا